الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidi alawalina walaxirin sayidina wa xabibina wa shafiicina wa wasilatina ila rabbina mabuusu raxmatan lilaalamin wa ala aalihi wa saxaabatihi ajmain amma baad salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñëwaat ci suñu émission bu am solo bi te mooy Kunûz As-Sâlik mooy trésor ki nga xam ne moom mooy tukki ban ki tukki di dem ci suñu borom tabaaraka wa taala comme niñ koy gisee ci suñu jotaay yi ne ay mbir la yoo xam ne ne ay point la yoo xam ne ne dañ koy waxtaanee ci suñu biir te mu nekk ay point yoo xam ne day laal tamit ci diine mu nekk loo xam ne ne jullit bu nekk danga koo soxla ngir sa diggante ak suñu borom tabaaraka wa taala daal di jeg tey nag incha allah ñu war a waxtaanee. man ak sama gaay ñu war a waxtaanee ci aju ci muñ ànd ci seen mbay ak tamit seen naawar eh, ñu xam ne ne muñ ci lislaam dafa nekk loo xam ne eh, daanaka ay alquran yu ci rot mënuñ ko mënuñ mënuñ lim lépp ci benn jotaay ndax tellement dafa bëri ak tamit eh, saar bi nga xam ne moom nañ tàmbale ci ci ci générique bi waaye bokk na ci ci li nga xam ne ne borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañuy wax ne ne muñ muñ dafa am ay ay façon bu ci njëkk moom mooy nit ki muñ bu mu war a muñ ci topp yàlla ndax euh, dafa contraire ak bëgg-bëggu bakken ndax bakken moom lu mu bëgg moom mooy noflaayam yow nag jaamu yàlla bi ngay jaamu yàlla da koy xañ noflaay boobu moo tax muñ bi ngay muñ sa bakken ngir mën a jaamu yàlla loolu dafa bokk ci mandarga yi nga xam ne ni day wane ni kii muñkat la beneen façon muñ bu ñu cité mooy muñ ci euh, yi nga xam ne yàlla da koo da koo tere ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne li nga xam ne moom mooy safara dañ koo ñage mooy dañ koo muré muraay bi dañ ko muré ci bànneexu bakkan yi donc loolu moo tax nga gis ñi nga xam ne ne dañ koy tere ngay gis mu ànd ak bànneex boo xam ne da ciy ànd moo tax bàyyi ko jafe moo tax mu am ñoo xam ne dañ koo boole ci yi nga xam ne ne mooy màndarga bi wan ne kii muñkat la moom mooy muy muñ yi nga xam ne ne moom mooy yi yàlla tere <coughs> beneen partie bi ci muñ te moo ko jeexal mooy muñ ci yi nga xam ne ne yàlla moom la lay teg ndax suñu borom tabaraka wa taala moo wax ci alquran ne ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من من الأموال والأنفس والثمرات mu ne man ci boppam suñu borom tabaaraka wa taala mooy wax ne man ci boppam dinaa leen nattu laa budda laa boobu loolu la mooy munta ñàkk ma nattu leen ci lan ci xiif naka noonu tamit ci ragal ci tiitaange une situation boo xam ne dalay tiital doo xamati sa avenir ci ci maanaam ci lan la posé wu yàlla mooy indi rëng-rëng boobu ci sa ci sa dund ci benn instant waaye tamit xiif nga bëgg am loo dunde dund bi metti xiif bi di la dab loolu tamit suñu borom tabaaraka nee na foofu teg leen ko naka noonu tamit <clears throat> wàññeeku lu aju ci alal tey sama baat bi dafa xaw a kii ndax sot bi wàññeeku ci euh, wàllum alal tamit comme ni ma ko waxee dangay ngay gagné parfois dama doon gagné 10 millions par mois mu jékki-jékki. yàlla teg la nattu wàññi li nga xam ne moom nga doon am di xool ba xam di nga muñ naka noonu tamit dina nattu ci nit ñi wala ci sa bopp soit koo xam ne dalaa jege nga gis mu génn àdduna mu nakari la lool waaye nga obligé muñ comme xale bu jigéen ma wala euh, soxna si nga xam ne ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo romb di jooy xalem di jooy di jooy di jooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko tee ngaa muñ mu ne ko jógal fii li la dal li ma dal dalaa dalul moo tax fekk na boobu gisul woon ne yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam loolu saa sam ba mu demee mu daal di ñëwaat ci moom daal di wax ak moom ne ko maa ngi tuub maa ngi jéggalu xaw ma woon ni yow la mu ne ko muñ de ñoo ngi koy xaar ca départ bi maanaam ci premier instant bi moom la ñuy xaar muñ ko <clears throat> li ñu ciy déggee moom mooy nit ki mënul jàmbat dem ci dëkk bi jàmbat jàmbat ba doyal ba xam ne ne amul solution mu ne kon naa muñ déedéet loolu ñu ko woowee muñ loolu genre boole la wala tamit nga wax wax ne ak kon naa jéem a muñ rek ba xam déedéet muñ bi ci commencement bi dañ koy xaar mais pas dem ba nga xam ne ne sës nga ba ñàkk pexe nga ne kon naa ko naa ko muñ naka noonu tamit mu ne dinaa leen nattu seen bopp mooy ci yéen ci boppam da ngeen am ay feebar yoo xam ne dina leen dal dina ñëpp ay wàññu wàññeeku yoo xam ne dina am ci seen ci seen jëmm te loolu moom mooy loo xam ne daf leen koy teg ngir ngeen muñ naka noonu tamit bekkoor dafa nekk loo xam ne ne suñu borom mën na ko teg peuple indi benn bekkoor boo xam ne ne après situation économique bi day daal di day daal di jafe mën nga am xaalis mais doo am loo jënde xam nga amee xaalis te amoo ceeb wala yi nga xam ne moom la ñuy war a lekk xaalis bi dootul amati valeur dootul amati boo amoon xaalis balaa nga koy xam boo bëggee comprendre li may wax ni moom mooy boo toogee ba 3 heures du matin nga yor 1 million sa sa poche nga nekk. benn dëkk boo xam ne restaurant yi duñ tijji heure boobu fast food du tijji heure boobu amul dara luy tijji heure boobu un million yooyu instant boobu est-ce que na la njëriñ du amal benn njëriñ parce que mënoo cee jënd fet instant boobu noonu dara pour mën a satisfaire sa sa xiif donc loolu moo tax euh, ñam bu amul tamit euh, xaalis dootul amati noonu valeur <coughs> waaye al aaya alquran boobu da cee teg wa bashiru sabirin na nga na nga bégal ñi nga xam ne ñooy muñkat yi mu daal ci teg ne mooy ñi nga xam ne bu fekkee nattu da leen dal ñoom dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun de ci yàlla nañu jóge ci moom nañuy lañuy dellu nest donc ñooñu te pare ñooñu daf leen dikk ay aljana ak lu bëri loo xam ne ne mooy nekk ci ginnaaw muñ bi nga xam ne moom nañ moom nañuy muñ naka noonu tamit ci muñ ci boppam da nga cee war a xam ne ne <coughs> euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ñu ko xamee mooy ki nga xam ne ne moo dàq muñ képp koo xam ne ne dangay dangay da muñ te moom mooy suñu modèle moom ci ay exemple bu bëri gis ngeen ko la fekk ko ñu ko doon lor waa Quraysh di ko lor ak ñeneen di ko lor nga gis mu ko doon muñ imaginel koo xam ne ne lu nekk daf la ko doon yekk lu nekk daf la ko doon wax waaye ba nga demee ba jekku am alal bu bari booy séddale ci ñoom ngay maam ñoom ci boppam nga xam ne ñoom ñoo doon xaste ñoo doon wax yenn yi ñoo doon doxalee nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam ba muy séddale ci ñoom la tàmbalee ci lu mu leen jox bokk na boo méttu sax moo ëppoon que ñeneen ñi par rapport ak lu mu leen joxoon bañ na ko ba jamono jooju am na jamono joo xam ne waa ansaar joxu leen dara pourtant tew ay lu ci mel ne Sofiane hmm, naka noonu tamit ay Ikrima yooyu jox na leen loo xam ne ne lu takkoo takku takku loo xam ñoom ci boppam sax mosuñoo yaakaar ne loolu dinañ ko am te duggaguñu woon ci comme lu ci mel ne Sofiane Euh, mu duggul woon safwaan bopp euh, Sufyaan mais safwaan euh, moom ci boppam duggagul woon ci lislaam yoon soo sam jox ko lu toll noonu donc loolu da gis ne ne loolu muñ rek moo ko mën a moo ko mën a may nit mën a muñ moo ko mën a may nit moo ko mën a may nit naka noonu tamit nga xool yeneen situation yoo xam ne ne dalaan dal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xiif ñun lu ñuy xiif xiif xiif am na xiif yoo xam ne daawuñu woon duñu ñu dal lu ci mel ni xiif bay takk sa sa biir xeer ndax da ngaa xiif ndaxte boo tekkee boo tekkee eh, xeer bi tam nga daan te loolu da dal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka tamit toog kër gi xam ngeen borom kër toog nekk borom kër sa ngay toog deux mois yoo xam ne doo am dépense lu dul tàndarma yoo xam ne benn boolu tàndarma boo xam ne moo nekk ci kër yi ku xiif rek nga dem lekk ci ci tàndarma boobu mu muñat ba keroog leneen di am donc loolu yëpp ay nattu la yoo xam ne ne ak feebar yi nga xam ne ne yonent sallallahu alayhi wasallam da ko doon dal ak wala sax muy muñ loru nit ñi yoo xam ne ñëw lor ko wax wax wax yoo xam ne ne wala sax ñëw lor boo xam ne ne dafay indirect maanaam day nekk loo xam ne nit ki ko tey sax mais moom nga gis ne da koy lor mais da koy muñ loolu day wane ne muñ ci boppam dafa nekk loo xam ne ne jikko jullit la war a doon maanaam jullit bu nekk da nga war a jël muñ mu nekk sa jikko bañ a wax rek ne du ma muñ dara mbir yi ci saa si laa koy laa koy régler lu mu ci góobe gar ko ak yu demee noonu yooyu nekk jullit warul di xalaatee noonu jullit warul di doxalee noonu jullit lu mu war a doxalee moom mooy <clears throat> jéem a jiital yàlla ci léppam bañ a ne du mu muñ ndaxte comme li ma koy waxee li ma ko waxee rek nit bu amee jikko muñ rek daanaka euh, lu des ci dundam yépp euh, bénéfice la donte nag lu metti la waaye liy nekk si ginnaaw à chaque fois nit ki amul dara loo xam ne comme yoon saa sam lu ko waxee amul dara loo xam ne ne dal na la ci sa alal ci sa jëmm ci sa njaboot nga mën ko lu dul suñu borom tabaaraka wa taala dina la ko remplacer ak lu ko gën maanaam li gën li nga xam ne mën nga mën nga doon mën kon loolu jar a bàyyi xel ci ci ci mun incha allah boo leen ci amee tamit question mën nañ ci jël quelques questions waxtaan ci incha allah. Mm-hmm. waaye maam ñu ngi kontaan wax waxtaan bi bu baax bu am solo. waaw fi nga fi nga duggee gën a amati solo muy muñ. waaw muñ moom muñ moom muñ muñ moom imam ñu ne muñ moom da dem ba jaaxle rek da ba ba sës rek comme ça ngay topp waa ji di muñ di topp waaj yi xeex ak moom di dóorante ak moom foo toll di dóorante dem ba amatoo choix daal. nga ne nañ ko bàyyi yàlla loolu muñ la walla waaw loolu du muñ mooy li wax commencement bi loolu muñ bi moo ñu tàmbalee ci bërëb bi xam nga bërëb li naan bërëb ci bërëb bi nañuy xaar ci yow muñ am na ñoo xam ne fi mu ne mënuñoo muñ ba boo moytu ñoom ñooy njëkk saaga ñooy njëkk ñooy njëkk déclaré affaire yi loolu du muñ wax ci xadis bi ne euh, ki nga xam ne moom mooy ki am doole nekkul kiy daaneel nit mi borom doole bi maanaam kii ki nga xam ne mooy jàmbaar dëgg nekkul borom doole bi nga xam ne ku mu jekku rek ku mu bëreel rek daan la du kooku waaye nag ki nga xam ne moom moom mooy jàmbaar dëgg mooy koo xam ne fexe na ba nga xam ne ni li nga xam ne moom mooy bànneexu bakkanam fexe na ba nopp meram ci boppam fexe na ba ba contrôler ko bokk fexe na ba contrôler li nga xam ne mooy meram maanaam buñ ko defee benn mbir du jub réagir ci saa si wala rek li nga xam ne dañuy réagir ci saa si ci tàng tàng bi daanaka ay toj-toj ngay def après toog di rëccu. moo tax yonent bi sallallahu di dégg di dégle ne boo meree boo meree bu la fekkee nga toog bu la fekkee nga taxaw toogal bu la fekkee nga toog te n'est-ce mm-hmm. beneen ci beneen xalis mu ne la da ngay jàpp loolu day wàccee nga julli ñaar rakk da ngay julli ba pare rek loolu day wàccee ndox boobu ngay jàppee day wàccee sa mer wala rek nga naan ndox mu ne ndaxte nit ki bu meree seytaane mer ci seytaane la jóge te seytaane mooy nekk ci ci ci xol bi di ëf mu ne loolu moo tax ngay gis nit ki bu meree bët bi di xonk gisoo leen nit ku mer bët yi da ngay gis del xonk cur du bëgg lu dul jooy ku mer kay day ñàng lool li <laughs> gis nga bët yi day xonk cur mer mu ànd ak rafet <laughs> <laughs> comme comme paa ba paa ba daal waa ji nee na paa bi moom dafa naqari deret mais bu mu rombee benn paa paa bi toog mu ne ko saa lu xew mu ne ko dara dara xew mu ne ko noonu gis sax nga njàngal mu ne ko ñu laa mel maa noppi rek mu ne ko moom <laughs> la xam ne moom naqariwul dara <laughs> kon loolu lu jar bàyyi xel la loolu lu jar a bàyyi xel daal imaam daal muñ daal yomb na ci kàddu waaye di daal yóbbu ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko yàlla mën loo fitoo nii de bëriwul moom ndax ñi ñi moom daanaka balaa ñooy muñ moom dañoo wax ba ñëpp dar seen gémmiñ ba pare. <laughs> ñu doog a kii. waaw bu ñu ci muñ googu. waaw même tamit dogguma la même même tamit kii am na ay mbir yoo xam ne loolu tamit mënuñ cee mënuñ wax ne diw lii muñ la. Hmm. exemple nit koo xam ne exemple rek la nit koo xam ne day njaaloo mu jékki-jékki yàlla def mu mu yomb. n'est-ce pas. mu mënul wax nga naa muñ léegi. naa ah, muñ ah kooku du muñ kat imam. <laughs> ah déedéet kooku kay parce que parce que kooku lu tax du muñ. Hmm. mooy mel ne li nga xam ne dafa am rek loo loo xam ne moo moo ko teree def li muy def c'est parce que dafa dafa dafa mënatul moo tax mu ne dafay dafay muñ mais loolu mënuñ ko woowee muñ mooy mel ne tey jii ñu ñu ñu dagg sa loxo nga ne kon euh, léegi damay damay muñ bàyyi sàcc doo damay muñ sàcc bi léegi loolu mun mun tane parce que muñ bi ñoo ngi koy xaar ñoo ko soxla jamono ci première bi commencement bi ba nga koy mën ba ngay am plaisir wala ba ngay am Euh, kii seytaane di di la rëng-rëngee boobu nañ soxla muñ bi mais bu ñu demee wax xam cër boobu bu amatul ci yow soxla moom amatul looy muñ maanaam dafa amatul foofu loo loo fay muñ mel ne tey ñi nga xëy yaa ngi am 10 millions yaa ngi nekk kii mel saa naka nga naan wax maa ngi muñ rek te yow dara dalu la n'est-ce dara dalu la yaa ngi ci jàmm yaa ngi et cetera léegi nag dara dalu la nga ne nga ne yaa ngi muñ te saa yooyu da ngay da ngay wax ne yaa ngi muñ noonu rek verbalement mais mu ñëw ko parce que yàlla lu mu lay def bu la ko tegee bu rocci woon fi mu ne 10 millions yi maanaam xaalis bi nga am bu ko commencé wu rocc rek nga dëgër yor même état d'esprit bi bañ a am euh, changement ci sa ngëm-ngëm ci sa pas-pas gën a am yaakaar tam ak yàlla bu boobaa mën nañ wax ne yaa ngi muñ muñkat nga mais fii ak yaa ngi ci jàmm rek et cetera mënoo goo xam ba xam muñkat nga moo tax wax ne ne man muñkat laa nekkul baat bu simple ndaxte euh, yàlla xëy xëy na tagalu tagagu la nattu bi tax nga xam ne ne doo mun kat te tamit nit ki yàlla bu ko tegee nattu dafa am benn affaire boo xam ne da koo war a bàyyi xel te loolu day wàññi dose nat nattu tuuti maanaam pas dose bi mais ci sa xol mooy ne boo xalaatee ne yàlla mënoon ma la teg lu ko ëpp rek da ngay da ngay sant yàlla mais heureusement ba nga xam ne teguma lu ko ëpp parce que am na sent sañu teg ma lu ko ëpp parce que samay morom wala ñeneen ñoo xam ne ne defuñ li tax yàlla teg leen feebar sàngam wala nàngam te pourtant man teguma ko mm. te mënoon na ko mënoon na ma ko teg mm-hmm. waaw loolu de amati na solo imaam mm-hmm. muñ moom naka jekk daa ànd ak daan daa ànd ak jullite mm-hmm. ndox même boo ñëwee ba suñu réew mi sax suñu mag ñi baax ñi ñaare li am lépp ñoo ngi am ci kaw muñ buñ ko jëlee exemple comme ci ñoo ngi dëkk ci màggal gi ki kay woote tey yaakaar naa ni lim am nii yaakaar naa li ko may mooy muñ ndax toog na ay diir yoo xam ne gisutum njabootam nekkul ci réewam waaw te loolu li ko may lépp mooy mën a muñ mu mel ni nag ñun suñ jamono yi léegi muñ googu moom dañ ko xewwi daal ah. maam nit ñi daal dañ naan la ax ah, saa yi muñ ndax yàlla léegi sax saa yi yàlla léegi sax yàlla xale bu góor la donc hmm. léegi léegi da def tey mu def la tey kon ñun tamit nañ koy def maam mbirum defante daal def rek def na ma def naa rokki mu rokki rek maam jamono ji daal foofu lañ toll mm-hmm. lan moo ñu indi ci jamono jooju ak bu ñu jógee ci mag ñi fi jaar ak di li nga wax yëpp lan moo ñu indi ci nag ñun nag ñu nekk ñoo xam ne moom mënatuñ tolérer dara mm-hmm. ndax imaam jamono ji ñii ñi mënatuñ tolérer dara de da gis sa kër sax bu añ bi xawee yéex sax nga yuuxu ah, <laughs> waaw bu fóot bi xawee takk nga yuuxu télé bi buñ la xawee coupé coupé bu ndaw sax maanaam yow yow nga rey sa bopp maanaam lu ñu indi ci lool waaw mooy dañ koy dañ ñu ko dafa am yu bëri yoo xam ne dafa yomb ci ñun te yombul woon ci mag ñi ñi ñoom dafa boo xoolee ñoom seen seen seen seen seen situation ak tamit seen seen époque dangay xool ne melul ni sax suñu époque de ce fait ci jamono jooju donc dafa am loo xam ne ne moo nekkoon principalement euh, doon dox ci jamono jooju mooy l'islam pur am dëgg nañ doon dund ñoom n'est-ce pas dëgg na ñoom ci boppam ñoo doon woote jëm ci l'islam di leen tuubloo di leen dugal ci biir l'islam mais su fekk foofu loolu noonu nag mu ànd ak jikko yu l'islam te jikko yu l'islam dafa da bokk nga mën a muñ nga nekk imam tamit day maam nga nekk imam moom mooy ngay dirige ay nit dafay am aajo tamit nga mun leen muñal seeni mbir ndax sa diggante sa borom tamit mën a jàpp ak mboolem mag boo jël rek fii nii boo xoolee jaar jaaram da ngay gis moom li mu représenté ci dundam muñ ci boppam léegi nag diggante bi euh, lan moo fi changé ba loolu tamit aspect boobu tamit ñun dunduñ ko mooy ne euh, l'islam bi ci boppam lañ jël ñun boo xoolee ñun l'islam bu ñu rax dañuy bëgg dund ñu bëgg dund l'islam ak leneen loolu nag du sotti mënoo jël l'islam rek parce que comme ni ñu koy waxee ni ko waxee sëñ sëñ Bay ni mu koy faral di waxee mënoo jël l'islam tant que delluwoo ci alxuraan di ko sukkandiku di ci bàyyi xel sa dund du mën a mel comme ni ko l'islam bëggee ndax lépp mu ngi ci alxuraan donc de ce fait nit ki bu jëlee teg fële alxuraan dootul niteeti de ce fait defante lay mën a def comme animal yi rek lay mën a def xam jaay àll defante ngay xam euh, sans pardon ngay nekk ku mën sa moroom duma ku mën a triander sa morom def ko ñenn ñi naan la xaalis parce que ñàkk muñ mooy yóbbu nit ñi ci lu bëri ay xaalis amul xet ba ñu dem la xam ne ne ñoom mën nañ dem fi mu ne jaayi drogue wala def lu leen neex rien parce que nañ am xaalis rek bu ñu amee xaalis après xëy na société bi ñu leen xoolee beneen façon gisin naka noonu tamit loolu moo tax ngay gis ñoo xam ne ne dañuy dañuy def ay mbir yoo xam ne ne yépp dara dara baaxu ci ndax nanguwu ñoo muñ pauvreté bi nga xam ne ne moom la moo fi ne te ñëpp fii ñi boo kuy dund Sénégal xam ne ne pauvreté bi presque lu benn gox fépp la tasaaroo lu sa morom di muñee pauvreté bi nag di jéem a sàmm seen ngor nit ki tamit noonu la war a jéem a sàmmee sàmmee ngorom waaye lool dafa nekk loo xam ne dafa tasaaroo comme ni nga ko waxee ci dëkk ci maam ci mboolem euh, dëkk yi yëpp laa wax na bu ma wax sax Sénégal mais monde bi yëpp daanaka loolu lañu mooy dafa am benn aspect boo xam ne ne xam nga mag ñi boo xoolee seen dund moo gënoon barkeel suñu bos da ngay gis benn mag boo xam ne ne bu njëkk danaan yor par exemple euh, exemple lay joxe rek euh, vingt à vingt cinq nit yoo xam dañuy fanaan ci biir kër ñii ay ay rakkam lañ ñii ay magam lañ ñii ay doomam lañ ñuy ay jarbaatam lañ et cetera ñëpp moom ci boppam mooy gérer lépp añ bu jotee nga gis ngan bi poon la ñuy teg et cetera gars yi sékku ko te ñoom xaalis bi ñu doon am par mois. Mm-hmm. ñun la fekk ñuy am ay 500000 di am ay ñoom mosuñoo am xaalis bu dajewaloo noonu ñu yor ko déedéet as tuut nañ doon am waaye seen as tuut boobu da daan barkeel ñu ci mën a def mu bëri ci mën a dimbali ay nit alors que ñun loolu mënuñ ko lan moo tax par exemple bu njëkk da ngay gis fi mu ne li ma doon expliqué noonu ci kër gi parfois mun na nekk kër sa boo xam ne kër bu ndaw la. yees ñoo xam dañ fay dëkk nekk 10 personnes studio ay temps ay jamono studio yu ñu am léegi nii ay temps 10 personnes dañ fa laa dëkk mais léegi da ngay am da nekk deux person mais bu amee kenn ku bëgg a dollee ko rek da ngay gis da ngay siisu nga ne kër gi dafa xat gis nga moo tax gars yi naan kër kër yi xatul xool yee xol te loolu lu koy indi suñu jamono ji mooy suñu jamono ji léegi yi ñëw ci ay réseaux sociaux du ñëw ci ay oto du ñëw ci ay portable amul woon temps yooyu te nit ñi léegi dañoo tàndu jëm ci luxe léegi bëggatuñu trop trop nécessité bàyyeetuñu xel trop euh, li nga xam ne moom mooy li nécess am lu nécessaire rek yem ci mais dañuy bëgg dund luxe pour ñu bëgg pour ñu dund luxe nag foo ñu jéem a def tout ma nga xam ne dañuy am xaalis de ce fait du ñu mun dara amul dara loo xam ne dañuy toog di ko xaar moo tax ngay gis ñu naan la ay am na nga xam ne te yooyu yëpp wax genre wax yooyu baaxul. ay yàlla yàlla maanaam yàlla ku koy xaar ay mbiram daa yéex yooyu dafa nekk yoo xam ne ne ay wax la yoo xam ne ne day génnee sax nit ci lislaam naka noonu tamit yàlla xale bu góor la kenn du ko wax ndax askane la yàlla ak xale bu góor loolu dafa bokk ci li nga xam ne problème pas-pas la yoo xam ne ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi dañ koy tere nest donc loolu lu jar a bàyyi xel la jullit li mu war a def mooy lépp lu ko mën a dal ak lépp lu mu war a def da cee war a jiital yàlla lu ci jiitalee yàlla rek ak lu mu metti metti metti metti metti da ciy am génnuwaay bu bu rafet génnuwaay bu baax ndax li nga xam ne moom mooy euh, mataawu xayaatu dunia mooy li nga xam ne moom mooy àdduna bi yi nga xam ne moo fi nekk ci ay tóor-tóor ci ay richesse dafa nekk loo xam ne day dem nit kii gis nga lu mu dajale dajale dajale benn bu dajalee un milliard bis bu génnee àdduna ñen ñoo moom ñu koy doon perte nga na mu dese fekk li gën moom mooy moom mooy nga rafetal utin bi ut moom baax na moo tax nga gis waa ahlu tasawuf duñ la wax duñ la wax liggéeyam mais dañ laa la sàkkul lu leew ndax liggéey jaamu yàlla la mais bépp liggéey boo gis jaamu yàlla la liggéey ci sàngara loolu jaamu yàlla déedéet liggéey ci sàngara loolu jaamu yàlla liggéey ci ay boîte de nuit et cetera di fa def yenn yi loolu du jaamu yàlla loolu jar a bàyyi xel la imaam foofu jar leer Mm-hmm. ndax da nga ne liggéey liggéey lu liggéey yëpp ay jaamu yàlla mm-hmm. waaye am ñi nga xam ne dañuy liggéey ci li nga xam ne tey par exemple mooy am na ñoo xam ne tey boo demoon ci boîte de nuit ñooy garde sécurité yi wala foofu la ñuy liggéey di servi nit ñi mm-hmm. waaw des fois des fois nit jënd alcool nga servi ko wala nga xam ne boo demee tey suñu mbokk moodu moodu yi nga xam ne tey dañuy liggéey ci ay usines yoo xam ne ay ah. sàngara yooyu lay defar ah, waaw te ñooñ dañ fa nekk di liggéey di daan seen doole ah. sàcc ñu fenn ñu daanaka dañuy liggéey di liggéey heure di wàcc heure Mm-hmm. waaw kon ñooñu ñooñu tey loolu ñu loolu ñu def noonu dagan na wala daganul. waaw loolu daganul lu tax daganul ndax alxuraan dafa wax ne bu leen jàppalante ci lu bon bu jàppalante ci ci lu bon donc bu leen jàppalante ci lu bon nag ba mu ko xasee ba wax lépp dugg na kon nit ki amul droit parce que jàppalante ci lu bon moom mooy lan nit ki day jaay sàngara yow danga ko koy serviral kon jàppale nga nit ci lu bon loolu ndax yaa ngi ko koy yaa ngi ko koy liggéeyal. kon yaa ngi ko ciy jàppale transporter tamit yaa ngi ko koy transporter kon yaa ngi ko koy yaa ngi ko koy yaa ngi ciy jàppale donc lépp loo xam ne lu baaxul la l'islam da ko tere nit ki amul droit dem di fa liggéey parce que bu koy def rek mu ngi jàppale lu bon di gën a di gën a sax di gën a di gën a dëgër te te te loolu c'est logique n'est-ce pas moo tax jullit yooyu waru ko def waru ko waru koo liggéey parfois nga gis koo xam ne ñoom day ñëw naan imaam dama la soxla woon naa nga ñëw toog waxtaan bu ñu waxtaanee ba ci biir bu la leeralee da nga naan subhanallah ndaxte day servir ay sàngara et cetera parfois sax ba am na ci kenn koo xam ne ne waxtaan nañ ba ci biir mais moom ci boppam commencé woon na di ci naan et cetera donc yooyu yëpp nga gis ne l'islam li tax nga gis mu tere loolu moom mooy euh, bokk na ci li nga xam ne ne moom mooy budul dara di dara sax l'islam bu ko xasee ba tere tere rek jeex na waaye danger yi nga xam ne ne moom moo ci nekk tamit day bokk ci sabab yi nga xam ne ne loolu moo tax tamit mu koy mu koy tere donc loolu moo tax yooyu yëpp ak yeneen yu ko ndiru am sàngara dañ mais yeneen yu ko yëpp dañ koy dàq nit ki amul droit liggéeyee ci lu mel noonu comme entreprise boobu am drogue lay jaay wala benn mbir boo xam ne rek affaire drogue la amoo droit liggéey ci munoo wax ne ne non naa ut xaalis rek après su ma paree mun naa naa saraxe déedéet sarax boobu incha allah bu ñu amee occasion dinañ ko dinañ ko jàng mais sarax tamit lu jar bàyyi xel la sarax nekkul ne da ngay dem ut sa xaalis et cetera après ñëw yaakaar na fi mu ne nice déedéet fi mu jugee nañ lay njëkk laaj mais pas fi ñu ko dugal ba pare lay laaj fi mu jugee donc lan laaj fi mu fi ko dugal ñun nag dañuy jàpp ne fi ñu ko dugal rek nañuy laaj dem def li ngay def donc yooyu yëpp day dugg rek ci ci lu aju ci muñ ba tey n'est-ce pas wallahu taala alam mm-hmm. waaw amatina solo imaam léegi xam naa foofu la ñuy jeexale mooy imaam léegi ginnaaw muñ goog nga yëpp ak maam jafe-jafe yooyu ci am nga xam ne ñi leen ak jafe léegi <laughs> waaw suñu borom nag lan la prévoir pour way muñkat yi way muñkat yi waaw est-ce que suñu borom am na lu mu prévoir pour way ko way muñkat yi waaw waaw na bëri na euh, bëri na yoo xam ne ay yoo xam ne euh, suñu borom tabaaraka wa taala da ngay gis ne da koy indi koy indi ci lu aju ci muñ nga xam ne ñoom ñooy ñuy muñ bokk na ci li ci gën a fës mooy lan mooy li nga xam parce que muñ xam nga moo tax muñ garaaw en fait muñ gis nga boo jullee walla nga woor wala ngay def ay asgar dangay am lan ci n'est-ce pas boo defee benn lu baax am fukk yu bon ak xom sax surla boo amee benn yu baax am fukk yu fukk yu baax boo defee benn lu bon am am benn benn bu bon voilà am benn bu bon mais muñ nag amul loolu muñ amul boo muñee benn ñu fay la fukk déedéet muñ boo ko defee yàlla day sëkk di la dox <laughs> te xam nga yàlla mu buy sëkk di la jox amul amul fi mu ne ma lay baatare nii xam nga muy sëkk di la sànni du maanaam valeur yi du bokk léegi nag de ce suñu borom loolu lay doxalee ak yow bokk na ci tamit àjjana nga xam ne ne tóor tóor yu fa ne am na ci ay bërëb yu nekk àjjana yoo xam ne lu dul muñkat yi lu dul muñkat yi rek ñoo koy mën a koy ñoo koy mën a am naka noonu tamit am na yenn daraja yoo xam ne ne wala yenn euh, maxaama yoo xam ne ne nit ki bu ko bëggee suñu borom tabaaraka na bu ko fa bëggee yóbbu du koy teg loo xam ne day muñ après nag bu yóbbu ko foofu naka tamit muñ tamit dafa bokkul ci loo xam ne ne day sippi say bàkkaar day dindi say bàkkaar maanaam nit ki lu muy muñ par exemple mu feebar feebar bu muy muy muñ feebar boobu da koy setal ci ay bàkkaar ma tax yén saa saa wax ne damaa yéemu ci mbir jullit ndax bu fekkee yàlla da ko may xéewal mu sant loolu moo gën ci moom naka noonu tamit bu fekkee yàlla da ko da koo teg natt maam da koo teg natt maanaam bu fekkee da ko da ko koo defal wërsëg mu sant ko yàlla day day kontaan ci moom mooy gërëm moo gën moo gën ci moom nafe noonu tamit bu fekkee yàlla da koo teg nattu mu muñ nattu bi yàlla tamit da koy gërëm donc loolu tamit moo gën moo gën ci moom moo tax mu wax ne ba ci dëj boo xam ne dafa jam daf la jam jullit bi ba ci dëj boo xam ne da ko jam loolu dafa nekk loo xam ne ne day sippi ci moom ay bàkkaar moo tax yonent yi alayhim salaatu wasalaam nga gis ne lu ñu meloon ci moom dafa jégg dayo yéen xool yonent yàlla euh, ayub alayhi salaam moom dafa feebaroon feebar boo xam ne dafa feebar ba nga xam ne daanaka mënatul woon sax dénkatu n'est-ce yenn yoo xam ne ne daanaka yu yu doy waar la waaye gis nga muñ ko muñ ko muñ ko ba nga xam ne ne yàlla fay ko li nga xam ne ne moom la ñàkkoon delloo ko li mu ñàkkoon fay ko lu mu ëpp sax li mu xam ne ne am ko woon naka tamit yén saa sam nett na am na ne am na benn yonent boo xam ne ne dafa woo waa waa kër maanam woo waa ay ñoñam peuple am woo leen ci lislaam woo leen et cetera ñu jàpp ko dóor ko ba nga xam ne ne mu ne man moo ngi mel na maa ngi fekkee jamono ji di ko gis muy dindi maanaam muy muy fomp deret bi ci kanam bi naan yàlla jéggal leen dañoo xamut rek gis na kon gis nga loolu ay ay maxaama la yoo xam ne ci ci muñ ay façon muñin la yoo xam ne ne ku ko ku ko yàlla mayul rek doo ko doo ko mën ba yàlla may rek doo ko nag may ñu amiin waaw muñ nag di gën a garaaw moom mooy ngay muñ ci sa diine muñ fexe ba nga xam ne sa diine du yàqu loolu bokk na muñ yu gën a metti ci muñ ndaxte tentation yi day bëri ñoo xam ne dañuy ñëw pour génnee la ci sa ci sa voie day bëri bëri mais nit ki dafa war a xam ne ne loolu mooy yoon bi maanaam la fekk nga nekk ci lislaam boo nekkee ci lislaam te amoo benn euh, ku lay ŋàññi xoolaatal bu baax mais boo gisee ne am na ñoo xam ne ne li nga nekkee ci lislaam neexu leen te pourtant lii muy dëgg julli bi woor bi et cetera ak doxal sunna lool nag da war a xam ne ne kon lii mooy preuve bu gën a mag bi wane ne maa ngi ci maa ngi ci lislaam maa ngi ci li nga xam ne yoonu saa moom la moom la fi bàyyoon ak ay saxaaba mais xam ngeen ne lool dafa ànd ak dafa ànd ak muñ dafa ànd ak muñ foo nga muñ ko sinon li nga bëgg ci yàlla ko doo ko dafa sëñ Mbaye. waaw bon comme li ma dégg si muñ moom mooy euh, ñëpp yaakaar naa ni ñëpp xam nañu moom ku muñ rek yàlla gërëm. Mhm. xam naa ni mën nañu jël exemple comme si ñaari euh, doomu ñu sax si ñaari doomu aadama laay wax wala. Mhm. Euh, jaamu yàlla. Mhm. mu yonent yàlla Suhayb ak ak beneen soxna si soxna Asi. soxna Asiya. waaw ndax parce muñ du du ku ñàkk rek moo war a muñ. déedéet waaw. ku xam Asia xam nga xam ni. Mm-hmm. amul lu mu ñàkkuloon. Mm-hmm. parce que jamono joojoom ki ñu nekkoon borom kër moo nekkoon ki gën a am. Mm-hmm. wala bokkoon na si ñi yàlla gënoon jox. mooy Pharaon. te moom it muñ na lool. muñ na luxe bi muñ na lépp. ngir yàlla. Mm-hmm. moo tax it yàlla teral na ko. Mm-hmm. xam nga boole ko si ñeenti jigéen ñi nga xam ñoo gën si àdduna. Mm-hmm. voilà ak aussi comme ki nga wax sànq yonent yàlla Suhayb. kii euh, Ayub moom it mu ñëw moom servir nañu d' exemple comme keneen ak ñeneen ak ñeneen aussi. waaye tamit dañuy jàpp ni jamono ji fi mu toll nii. li ko gën a yàq mooy coach yi. parce que coach yi nekk si internet bi amul yàq nañu àdduna bi lool lool ba nga xam ne. surtout coach yu jigéen. parce que digaluñ dara seen moroomu jigéen lu ku def ñu def mm. loolu def ñu fayu mm. ba tey yegg nañ foo na xam ne sax jarul bon xam naa boo koy wax day gën a day ñaawal mbir yi rek mm. mooy lool mais ñu gën a delloo xel yi rek ci xam ne yàlla moom ngërëmal yàlla moo ëpp moo ëpp àdduna moo ëpp lépp moo ëpp lépp waaw te àdduna doon na lu éphémère loo nga xam ne yàggul lool lool lool ba nga xam ne nit war na fi def yenn yi nit nag nit rek la war nga mun di rëccu Mhm. war nga mën di yàlla di teg yenn nattu yi saa exemple ngay rëcc def yenn yi. Mhm. même boo rëccalewul même boo nekk ak su loo di ne tamit nga jéem a baax rek parce que yàlla moom. Mhm. na yàlla kenn xamul lu mu toll. ku dem ba jël soixante dix nit jël ko def ko sa benn. mooy fi muy waxee ak Seydina Moussa rek. bu muy euh, mbugal euh, euh, kii. ah Arouna. Ah, mm, waaw ah, moom koy jégalu na ko 70 fois mu bañ te yàlla moom ci baaxam nee na. Mm-hmm. su ko jégaloon benn yoon rek mu jégal. Mm-hmm. xam nga loolu am na solo kon ngërëmal yàlla ak. Ah, ak mm-hmm. ak baaxaayu yàlla daal. maanaam yàlla daal mooy baax. jëmmi baax mooy yàlla. waaw yooyu moom jar na bàyyi xel te ñu ñu daw bu baax course yi. parce man ci li ma rëp ci li ma. gën a repéré mooy ñoom bokk nañ si ñu yàq àdduna bi. bokk na ci chaque jour dangay gis si internet bi course bu jigéen boo xam ne day conseillé moroomu jigéenam <laughs> loolu nga xam ne te moom sax daanaka jagul. Mhm. ñiy conseillé li ñu leen di conseillé lépp amuñ si ndam. Mhm. Mhm. kon nañ bàyyi xel loolu bu baax te ñu jéem a muñal yàlla te nga yemam. lu am solo nga wax mooy <clears throat> li alxuraan wax de ndax da ngeen di digal nit ñi lu baax ba pare di fàtte seen bopp. Hmm. tan saw na anfusakum ndax da ngeen di digal nit ñi lu baax di yeneen def lu baax. ba pare di fàtte di conseiller seen bopp yéen tamit ci mbaax boobu loolu lu jar a bàyyi xel la néegu sëy yi tamit ci lu am solo la ci muñ <clears throat> nit ki buy sëy muy ku góor ki muy ku jigéen ki kenn ku ci nekk am na yoo xam ne danga ko war a muñ ci sa ci sa conjoint mooy ki nga xam ne moom nga nekkal nit ki mënul parfait nit ki ngay nekkal mënul parfait à cent pour cent nit bu parfait mënoo koo am mën nga am nag ku tane koo xam ne ne moom yow si sa si say ngëm-ngëm ak li ngay xalaatee ak sa projet kii kat dëppoo na ak ki nga xam ne ne yéen ñaar mën ngeen cee ànd moom nag muy ku góor ki par exemple ku góor ki am na yu bëri yoo xam ne da koy mun ci ko jigéen ki par exemple tontu yi saw yi par exemple nga yónni ko mu nekk ci leneen n'est-ce ak yeneen yeneen yoo xam ne ne daanaka ay jikko jigéen la mën tarre bi yooyu yëpp seen jikko la xam nañ xam nañ leen mën tarre bi ak yu demee noonu ak part fa nga gis koo xam ne fiiraange bi day ëpp dalay dem ba après dalay sonal yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ne ni ku góor ki du ko war a muñ du ko war a muñ waaye moom tamit na xam ne ne ku góor ki tamit dafa war a xam ne ne nu muy muñee soxnaam loolu la ko soxnaam di muñee maam nekkul ne soxna bi du muñ amul lu muy muñ ci moom am na pourtant li ngay gisee ay mbir yoo xam ne du la neex sa soxna sa soxna tamit noonu lay gisee ay mbir yoo xam ne du ko neex ci yow n'est-ce de ce moom tamit day obligé di la muñal par exemple moo tax nga gis ñu naan kii dafa nay kii loxo bi dafa dagg ak nangam nangam dafa mën a guddee dafa mën a nangam dafa mën a nangam donc yooyu tamit ay mbir la yoo xam ne rek ku jigéen ki tamit koy da koy muñ ndax jigéen lu muy muñ tamit attention moo gën a grave ñun suñ moo gën a xaw a mais ñoom seen muñ dañuy muñ ba muñaale goro yi muñaale ay njëkke fu nekk seen sëy dafa compliqué ay nawatal ak fu nekk du war a dugg seen ak seen diggante ñoom conflit interne xam ngeen li may wax ñoom seen biir rek conflit interne bi concurrence bi yooyu yëpp ay muñ la yoo xam ne jigéen bi ci boppam da koy muñ donc couple tamit li koy defar man li ma jàpp moom mooy waxtaan déjà foo ngeen di waxtaan couple boo xam ne ne du ñu waxtaan couple boobu jëmul fenn couple boobu mënul jëm fenn foofu ngeen di waxtaanee seeni problème ci anam bu mu gën a rafete ku góor ki tamit mat soxna si kilifa mat soxna kilifa nag nekkul toog di nekk dictateur di ñàngal ah boo duggee ci biir kër gi sax ñëpp uti fuñ jëm déedéet du loolu waaye kilifa bi tax may wax moom mooy sa waa kër ñeme la sox soxna ñeme la pas yàpp la mais ñeme xam ne lu mën am rek moom dina am fitu ñëw waxtaan ceeg yow lu mu mën a dugg rek lu nekk mu am fitu ñëw waxtaan ceeg yow ki gën a ci kilifa yi comme lu waa ji li mu waxoon mooy ki gën a bon ci kilifa mooy koo xam ne ne njabootam buñ ko soxlaa seen xel du dem ci moom kooku mooy ki gën a bon mooy koo xam ne ne bu amoon tey ji benn problème xelam du dem sama jëkkër ji mun na ko régler wala sama wala doom ji doomam ci boppam bu fekkee dafa am benn problème bu xalaat ne sama baay wala sama sama yaay mun na rek régler problème bi moom keneen lay xooli mais paa mais pas papam wala yaayam kon loolu lu jar a bàyyi xel la ci biir néegu sëy néegu sëy tamit néegu muñ la ci ku góor ki naka noonu tamit ci ku jigéen ki te bañ a moy te moytu tamit comme mbay li muy wax ñi nga xam ne mooy coaching parce que yow tamit munoo nekk koo xam ne ne marié nga dem par exemple wax ma sax coach yi mais da ngay nekk koo xam ne marié nga dem koo xam ne divorcé na nga koy nga koy laaj conseil lan la lay wax man de waa ji bu ma ko defee nangam laa ko def nga dem defi mënoo tamit dem ci benn célibataire boo xam ne moom ci par exemple fekkee jigéen entre jigéen mënoo dem koo xam ne moom gëmul dara ay farantu dafay da koy tegle toog nga wax ko lan la lay wax man de bis bu ma ko góor defee nangam laa koy def dafa am benn ñaari soxna yu ñuy faral di nettali xam naa foofu laay daanelee côté bi ci point bi moom mooy ne ñaari soxna yi kenn ki da ko doon wax naan ko da ngaa ñàkk fayda parce que sa jëkkër ji dalay dóor rek saa yu non dalay saaga rek dalay saaga rek doo tas sa sëy bi chaque jour mu wax ko ko mais daal dafa jékki-jékki benn jour mu fipp jëkkër ji saaga mu fipp génn ne day génn kër gi ba mu génnee kër gi mu romb parenteeru fajar gi noonu mu romb yi ki ko doon conseillé naan ko tasal sa sëy ndax dañ lay saaga mu romb gis dégg ko mu naan nijaay kay tekki ma parce que jëkkër ji du ko dóor ba takk ko mu daal di dellu jëkkër jéggalu jëkkër ji xam na ne man kat defuñ ma dara parce que kii may conseillé lii du conseil bu baax parce que moom ñu ngi koy dóor ba takk ko ci lal bi te man kenn defaguma loolu donc loolu tamit lu bara jara bàyyi xel la ci affaire coaching booy ut conseil conseil boo xam ne ne déjà ku mature la déjà koo xam ne ne kooku euh, li muy wax maîtriser na ko wala xam na ci dara wala moom ci boppam dund na ko surtout kooku mën nga ko laaj conseil te loolu tamit seggal parce que situation moom ak sa situation mun na bañ a bokk nest donc loolu jar a xel la ci ci néegu sëy néegu muñ la waaye tamit néegu néegu néegu bànneex la ak néegu muñ waaw naqar ak bànneex moo composé sëy nest bu neexee ngeen sant yàlla dund ko mu naqaree tamit ngeen muñ ko kon suñu thème bi ni ñu ko waxtaanee bisimilah. waaw kontaan nañ ci kàddu yi am na solo bu baax ñu ngi ci euh, kontaan bu wér yaakaar naa téléspectateurs yi ñuy déglu yëpp tamit kontaan nañ. wala auditeur yi. auditeurs yi waaw ndax amaguñ télé ndax ah non télé ñëw. amiin ah, il faut ñëw télé bi day ñëw allah. <laughs> kon di leen jaajëfal di jaajëfal Ousmane euh, Oustaz. ci taxawaay Ousmane di jaajëfal bu baax di jaajëfal mboolem ñi fas yéene teewlu émission bi rek di leen ne yeneen yeneen épisode yaa ngi ñëw. Mm-hmm. waaw dañuy xaar ci plateforme yi rek. Mm-hmm. waaw yeneen yaa ngi ñëw yeneen thèmes yaa ngi ñëw. incha allah ok yaakaar naa sëñ bi tàggoo après. waaw rafet na rafet dañuy xam naa ni moom àdduna moom loo ñaanul yàlla rek. Mhm. bu ko sàkku feneen quoi. Mhm. comme boobu ngay wax ne dañ ciy gën a taxaw di ñaan yàlla mu dimbali ñu. Mhm. di ñu di si suñu bopp daal. ba ñu lu ñu teg rek ñu mun koo dékku. amiin amiin amiin ñu ngi leen di jaajëfal bu ko dal islaax mastata'tu wa tawfiiqi illaa billaah subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun walhamdulillahi rabbil